ciy dugg euh, Bassirou Diomaye Faye euh, yokk nañu la nga xamante ne ni euh, moom lañ ko tegoon boole ko dossier bu Ousmane Sonko lan la ñu war a mën a xaar ci foofu. ça ressemble beaucoup plus Euh, Ousmane Sonko liñ ko imputé ñoom dañoo teg ay video def ay montage wax na lii wax na lii wax na lee Bassirou Diomaye Faye benn ci wax yooyu noonu euh, ban lañ ko ci imputé ba jël parce que dañoo jël charge yu Ousmane Sonko yi rek. waaw yenaat ko ko. Hmm. jonction waaye jonction comme comme on euh, yoon may na ko procureur mën na dem ba ci biir enquête def réquisitoire supplétif. Euh, juge d'instruction dans le cadre de ses enquêtes à charge et à décharge mën na def non-lieu partiel yokk ay affaire nangam yoon may na leen ko mais techniquement ak euh, se baser sur des faits su aussi bien insensé ci Ousmane Sonko mais nu ko raw la insensé ci Bassirou Diomaye Faye mais parce que boo ne association de malfaiteurs ça pose problème que Ousmane Sonko luy même moom kese war a associé ak boppam il lui il lui faut chercher des associés parce que association benn nit ça n'a pas de sens deux ou plusieurs personnes lay doon léegi euh, il s'associe avec Bassirou Diomaye fay pour faire appel à l'insurrection Bassirou Diomaye Faye post Facebook lañ ko toppee woon fii nii ça devient euh, aussi claire de plus en plus que ni lii ça frise le ridicule jékki-jékki war a mën a yokkaat ci moom charge yooyu noonu vraiment ça me donne l'impression d'une théâtralisation de la justice finale loolu ci jublu xëy na dañoo njort ne kii mooy numéro de ba wala mooy plan B ba ñu anticiper xanaa xanaa mais wax dëgg yàlla ces arguments là son aussi séduisants que fallacieux amul bopp amul génn man ba léegi je c'est-à-dire kaaw Bassirou Diomaye Faye damay toogaat léegi di xool Ousmane Sonko chef d'inculpation par chef d'inculpation naka lañu war a mën a réussir à fair cette jonction là non mais vraiment les gens sont géniaux fois da nga naan mais gars yi ay ay ay extraterrestre lañu wala nu mu demee noonu ah. est-ce que xam ni la la euh, li ñu wax ci Ousmane Sonko yëpp huit chefs d'inculpation vol bi la ñu génne parce que voilà ça deviendrait absurde <laughs> ah, mais mais acte de terrorisme Euh. acte de terrorisme venant de Bassirou Diomaye Faye nga xamante ne kanam gi daa lewete lewet ba saa nit ñi dañ doon wax naan Bassirou Diomaye Faye il ne fait pas euh, euh, voilà politiquement opposant dëgg-dëgg war na ëpp at ñi ni kanam bu lewetee nii kii la ñuy wax acte de terrorisme na muy waxee waaw kii la ñuy kii la ñuy wax appel à l'insurrection mise en danger de la vie d'autrui atteinte à la sûreté de l'État sur quelle base haut fonctionnaire ñu fekk ko ci bureau au cadre de l'administration quand même c'est-à-dire lii nii jarul sax ngay laaj juriste vraiment mooy loolu quoi dañ dañuy dañ dañuy mujj. ah déet ci fàttali. dooy bi yow bu ma la laajee di nga ne ma ah jour tel parce que ñu ci poste non dama ne. dañuy laaj parce que poste mhm. boobu noonu la ñu bàyyi xel. waaw comme poste d'interrogation fari lu koy daal mais tey bu ñu jógeatee ñu ne ñu lii ak lii dolli nañ ko si. on peut se poser des questions ne fan la. yooyu jógee oui man jàpp naa ne fi mu jógee c'est une théâtralisation de la justice yàlla. saa yi Fadilou Keita point d' interrogation la posé bu mu la bett ëllëg bu ñu ko defee jonction moom it. Hmm. ah oui bu mu la bettati képp ku bokk Pastef maintenant euh, l' c' est de présenter les membres de Pastef comme des de de des des des des jinne wala je ne sais quoi euh, Bassirou Diomaye Faye nga ne dafa mettre en danger la vie de qui que ce soit wala dafa atteinte à la sûreté de l' État. ci koo xamante ne moment bi ñu koy jàpp au fonctionnaire au cadre de l' administration sénégalaise mi ngi woon ci bureau di liggéey. mais man Arame je me au de au de politique waa PASTEF am nañ lu ñu def waa APR. waaye hmm. parce que acharnement bi ak coxor gi ñu am contre waa PASTEF ma loolu dafa jéggi dayoo non mais c'est c'est extraordinaire. Hmm. mais wax naa ko fi la fois passée. day dem ba day dem ba. Euh, l'opportunité des poursuites. dafay mel ni ça n'appartient même plus au procureur da xool rek sur les réseaux sociaux. les membres de l'ex dafa mel ni ñoom ñooy def mise en accusation. mais mais mais mais ex Benno Bokk Yaakaar Bokk Yaakaar dafa mel ni ñoom yàlla def leen ex Benno Bokk Yaakaar. da fii la dëkk nangam nangam et cetera wax wax mais loolu la dafa mel ni ñoo ñooy parquet. moi je kii. pas Moussa non il prend pas parti. li fi xaw ma quand la justice prend parti yow ba pare di bañ ko prendre parti. quand la justice cest fi mu toll nii man kay moom même ma rek. même rek ma ma non dama dama lay dama sama bopp tuuti rek. nekkuma ci ay neutralité rek. problème bu taxaw je prends position. Pape Moussa bi ma jàppale mooy dëgg foofu lay taxaw. Pape Moussa il faut dire il faut dire juste loo xamante ni. dafa leer naññ ne fàng dàng. quand la justice prend parti hmm. Thierno c'est ça qu'on doit dénoncer su fekkente ni nit dof dafa wax lu ndaw ñu teg ko ci kaso bi Penda Ba wax lu ko jéggi dayo nekk ci biti ñu promouvoir ko jox ko sax passeport diplomatique la justice a pris parti su fekkente ni oustaz euh, oustaz bi nekk euh, Sen TV Assane Seck dafa wax am ku wax lu méngoog li mu wax moom mu dem prison kële nekk ci biti di ndaataata lax la justice a pris dañ koy dicter te ñëpp xam nañ kan mooy dicter cette justice. Monsieur. mais nag euh, lu jeex jeex na ba noppi man toujours moo tax ma ne suñu débat ngir yàlla ak bi digg pénc néegi yoton wuñ ko dañ koy ëtt yoton <laughs> te buñ demee ba koy ëtt yoton lu ñu bokk ak suñu nawle sénégalais yi ñuy seetaan la waratuñu fi tudd tur yooyu bu Moustapha Niass Pa Niass nga xamante ni boo ko naan xuux sawaay mooy loolu. Pa Niass nee na Amadou Ba mooy suñ candidat deux mille vingt cinq. wa non yow. attends deux mille vingt cinq. Euh, il a dit deux mille ni ko paa yooyu ñoo toog non je veux dire ni. non je veux dire ni su paa yooyu toogee dajaloo. ay paa Jean Paul Diaz ay paa Niass ñoom ñooñu man dama xool ma gis ay paa ñoo dajaloo. ne dañuy décider ci avenir u soixante dix pour cent des jeunes. donc ñooñu on doit les ignorer multiplier par Absalène LN2. merci merci Kilifeu cinq xaw ma wala wala kii nii. Bachir la justice a parti Thiam. Euh, euh, euh, Pape musa Sow il est très passionnel quand il parle mais man je je sur des faits te il a raison de le dire juge dañoo nekk ci dossier boo xam ne instruction la donc le juge peut instruire gis ni il y a de nouvelles charges loo xam ne gisu ko woon. bind procureur procureur def benn réquisitoire wala mu abandonné ay charges et cetera bon a priori et à première vue je suis d'accord avec lui je ne vois rien reprocher à Bachir mais dellu leen un peu en arrière Ousmane ko jógee na euh, Koungheul bi ñibbisi ñu ne son téléphone ou ses téléphone sont saisis son ordinateur sont saisis après quelque temps ngeen dégg presse bi naan Les téléphones ont parlé. Les téléphones ont parlé. xaw ma. Ah, di nga xam de. déet. Ah, ah, wax les téléphones am na am dañoo ne. on a vu ci nee na mu téléphone Ousmane Sonko wax loolu benn journal moo bind à la une ni les téléphones ont parlé. on parlait quoi. il il n'a pas cité de nom. il a dit bu ma jàmbal moo bind. ba tey bu la neexee il a yi tooñ justement c'est-à-dire que c'est c'est vraiment réducteur kilifa. ma ne de penser que tout un journal. c'est vraiment réducteur de penser que tout un journal obéit à la le problème le problème de la presse et de l'information lundi ah. de Madiambal c'est pas lundi de Madiambal Diagne je suis désolé c'est un article signé par Mohamed Madiambal de la presse et de l'information d'accord d'accord léegi maintenant moi je dis peut euh, kilifa c'est réducteur dans ce pays de penser que ñu ñuy toog fii sans limite dañuy wax loo c'est réducteur de penser que yow damay toog aram naan la waxal kon nag ni ñu ko mën a nangulee suñu bopp nañu am cette présomption de bone fois si ñeneen ñu xam ni quel que soit le médium quel que soit le propriétaire du médium ñu fa nekk il travaille librement jeudi passé Euh, avant avant avant avant ñuy Macky Sall di def choix ci Amadou Ba Madiambal sànni nañu ko. waaw mais ko neexee amee bi ñu fi waxee ni Madiambal ko wax. mais am ku ne am ku ne kii am fu am ku ko ne. lu mu wax. lu mu wax. voilà très bien mu ngi noonu. dama ne bu ma am bu ñu dugal ci loolu parce que dama ne bu ma amee information ni Mimi Touré. ak Badiambal il faut soit dans le système. am dans le système c'est pas mon problème. dama ne waaw di ngeen ma léegi déedéet may leen ma je reviens je j'ouvre une parenthèse que je la ferme encore une fois quelle que soit la personnalité de Madiambal kilifa moi je respecte les journalistes qui sont dans le sous-journal qui font leur travail. mais man tamit c'était pas kon boo leen respecté bul bind parce que ma n'a pas écrit Madiambal bind loolu moom. man maa ko ah, la génn le si j'ai la si j'ai la preuve que madame Mimi a discuté avec Khalifa et Khalifa da koy soutenir bu ma ko amee damay noppi en tant que journaliste dama koy wax mm-hmm. problème. maintenant qu'un journaliste ait la primeur ou que quelqu'un a fait son choix wax ko le journal euh, euh, de de kii de Daouda Thiam bindu fi ni Macky Sall ne sera pas candidat une semaine avant mais dañ ko koy.